yow maa ngi moom duñ taxawee loolu mu doon def ak bii day uute. fan nga teg loolu. waaw yow dugal si làmb daaw da nga xool daaw da mu diwoo suuf taxaw góor dëgg koy affronté mais du genre. waaye li ma la daaw dañuy daan classe bi gi. parcelle gi dafa nekk fi daan daanu fi mbër. pour waa parcelle waa boor bi la xam ñim daan kenn dina lim da xam ñim daan xaaral man ñi daan dañuy dégloonte rek man combat yi mag moo tax yow nga am fitu taxaw fi di man journée yi mag yi ma bëri a retard tuuti moo tax kii am fitu wax man mais bu journée yi ndaw yi dugg kon dem naa bu yàgg journée bu mag maa ko man moomoo dara journée yëpp da ngaa daanu bu ñu waxee nga ne benn defet nga am kii li ma am ay defet la yow doo ma may la tentaw nga jënd essence ñibbi dama si net ba njëkk kii si làmb ji lépp xam na ko xam nga ma ji xam nga ma <laughs> barki alxuraan defal mu gën a torotoraat billaay walaay boo duggee parcelle dañ naan la mbàkke xale la barki maam seera ma la wax waxu mbër moom mel noonu mbër moom doo ngay xool samay combat ak duñ ko dégloo duñ ko tëj ba li laa lay wax nii eh, kii waxu théâtre kan lay wax barki Cheikhul Khadim laa la nañ nekk si làmb di wax nekk si plateau di wax mais ma suul sama ndey ak sama baay mbër moo jaarale woon àllu jam ñaajo bi génnee ko ñuy xuus du dem du bari mais nag li ngay wax nii est-ce que xam na ma ko dëggal ba na fi mbër ñuy waxee nga ne góoboo mbër. mais bu ñëwee ci digg géew bi nga xeeb leen. man man mbër. Ousseyn maa dégg may wax wax ju bari. Mhm. barki alxuraan man du ma wax wax bari. mais sa diggante man samay combat du mat minute. mais est ce que xam nga ne buñ fi jógee buñ fi jógee Daouda. Daouda est ce que xam nga ne buñ fi jógee dinaa woo ay promoteur kan Macky. waaw waaw léegi si fii lañ ko waxee. waaw amul promoteur. mooy waxaale du déggoo ak moom. du déggoo ak moom. lu ma fay ma jël yaa ma déggoo déggoo mhm. benn da ngaa jaam ne da ngaa jafe daan te war na maam Serap Fall yaa gën a neex daan si mbëri. Ah, baax na loolu yeggagul si mais nag mais nag daaw do di kii du encaissé galaa ma koy songaat mu kaat appi ñibbi. kii du encaissé galaa ko fay fekkaat mu ñibbi. kii maa ko fii. boo yi nii nañ dawal. Ousseyn yéen ñëpp a ngi si làmb ñu ngi si làmb. Mhm. man xale laa. damay entraîné yow xale laa mënoo koo bàyyi. matin midi soir. mënul <laughs> bàyyi xale la. yooyu ñëpp nekk xale la. waaw ñaari yoon la Balla Gaye Balla Gaye la fi nekk xale. billaay léegi la commencé nekk mag. <laughs> moom mënul bàyyi xale laa. non man xale bu ah, yi bëriwuñ. daara yow kër gi xale yi mag eh. moom sama mag. xale yi Babacar xale yi. bëreeguñ ñi dem si géej gi di entraîné di mbapatantu xale yi ñoo ñooy xale. Mm. mais licence kuñ ko defaral ne ko too xale. est que ay déggoo <laughs> bu baax moo tax moom mu bëgg a man yaa may dégg. daal mm. man bëgguma bëreeg yow de eh, bàyyi li ngay wax bëgguma bëreeg yow de yow loo fi def ba mooy bëgg bëreeg yow. yow li ma fi def da nga ko fay daanu nga xamadi kii monsieur benn defet la am waaye ban benn defet tout ça doo ma bàyyi nga benn defet kii dama ko seetaan mu daanu bari moom du génnee sama benn defet moom beneen benn eh, am naa defet am naa deux kii li mu daanu man daanu mu ma jëlal as numéro nga woo ko. lu ma wax du amul yàlla bu ñu seen teg Serap Fall. yow as sa ménager.